toxicomanie maanaam sulaar nekk lu ñuy faral di gis lool ci société bi am ay kuréel yuy yëngu ci loola ngir jàppale ñu koy jëfandikoo muy cigarette wala drogue alcool maanaam sàngara wala sax ñii di gaz ba ñu koy jëfandikoo buñ ko jëlul mu daal di leen di sonal. monsieur Ba nekk le représentant des toxicomanes fii ci Sénégal indil ni ci ay leeral yu am solo. benn entretien téléphonique ak ndawu leeral bii ñu déglu leen taataarlu seen i kàddu. ñoo ngi may wooyee Alaaji Badara Ba. nekk ancien militaire def trente cinq ans et six mois d'armée man dama am benn association de lutte contre la drogue la toxicomanie et le VIH sida à Tivaouane maa ngi ko créé depuis mille neuf euh, deux mille deux hmm. sama structure est reconnue par l'État j'ai fait des sensibilisations parce que l'État m'a reconnu nee naa la dem naa ba je fais partie du secrétariat permanent de la lutte contre la drogue au niveau du ministère de l'intérieur waaw kon nga xam ne bopp reconnaître nan ma yónnee nan ma des des des toxicos yoo xam ni ñoo ngi jógee Dakar seeni parents indi leen fi ñoo xam ne ñoo ngi jógee dans d'autres régions seen parents indi leen fi ba defal leen benn entretien xool seen degré maladie fi mu toll mën leen évacuer à dalal xel ñu pare parce que ñun duñ defee la prévention primaire constatée dañuy dugg dans la prévention secondaire yóbbu ko dans un centre de cure muy dalal xel wala hôpital Thiaroye su génnee maintenant ci centre de cure boobu su ñëwee dama koy jëlaat en prévention tertiaire lu ko defee di suivre garab yi ko jox di ko defal projection mu xool avec ni ma koy jàngate à travers son regard ak ses réactions dinaa xam ndax kii tane na wala ndax tanewul parce que foofu waaw parce que dafa benn fiche de renseignement je pose des questions il répond damay coché su ma paree ma xool le pourcentage le pourcentage de oui et le pourcentage de non ci laay xam degré feebaram fu mu toll fiche boobu laay jël yóbbu ko chez les spécialistes comme ñu nekk dalal xel su ko defee ñoom à travers cette fiche la le médecin traitant dina am déjà une idée sur le malade qu'on lui a ne su ko defee en fonction de ça mu seet nan la koy mën a euh, euh, euh, toppatoor bon léegi li am solo mooy xale bi du fekkee feebar na ba ñu fekk ba mu ñibbi ba ñu suivre ko parce que da ngay xam ne dafa am trois effet yu nekk ci moom d'abord di ko problème bi dalee au niveau de sa famille dañ ko commencé marginaliser suñ ko jëlee indi ko ci man moi je ne suis pas parent may seet nu may ko jàppale su ma ko jëlee yóbbu ko dalal xel ñu faj ko il va trouver d'autres patients yoo xam ni ñoo bokk même problème donc c'est un nouveau milieu bu mu gis su ñibbi si bu ma jël ko en prévention tertiaire foofu damay jéem a seet nan laa ko mën a récupérer ba mën ko dugalaat dans le dispositif de de euh, de ses parents pour waxtaan ak ay parents du ko defee déjà ba du delluwaatee il rentre dans la maison familiale en état normal bon cursus boobu yëpp mën na durer quarante cinq jours mën na dem. selon la gravité de la maladie au-delà de quarante cinq jours mais xam nga en hospitalisation waa ah, dalal xel ah, ah, dañuy fay garab yi da nga koy jënd et la bourse concernant les parents bariwul man centre bi ma yore am ma subvention dama koy def rek ngir yàlla des fois nga tombeek ay parents yoo xam ni gis nañ li la dal gis nañ li ngay def ñu appuyer le financièrement avec des sommes symboliques waaw que xale bi du ko jëlee en prévention tertiaire du fekkee dëkkul Tivaouane du fekkee dëkkul dans le département du fekkee il vient au de la région de Thiès yow tu le prends toi intégrer ko dans sa famille pour lui donner l'assistance nécessaire pour mu xam ni fa mu nekkoon di faju ak fi mu nekkaat ñaari place la pour ëllëg du demee ci mbokkam oto il s'intègre correctement dans sa famille kooku loolu lépp nag bi ma nekkee France laa ko jàng di def ay groupe de parole ñuy waxtaan may woo yaay yi di waxtaan ak ñoom di leen xamal naka la xale bi du commencé def jël drogue naka lay mel parce que doo commencé tux ba ngaa de ba ngaa nekk dépendant sa appétit day coupé sa kanam day changé da ngay bëgg ndox mu bari foo wéeru da ngay nelaw da ngay gaaw a mer tu deviens agressif doo amulee sa joint mën nga ko sàcc ci càcc googu mooy tax nga nekk agressif te doo drogué wu daf doo dee góor sa xel di nekk ci jigéen doo dee jigéen di ko def sa xel day nekk ci góor ba fi mu ne koo ci wéetal koy jéem a sàkku lan la lay jural ñu jàpp la condamné la tëj la et consort waaw yooyu yëpp daal mu ngi ci waaw xam nga déjà la première cigarette doo ko jënd le premier juin doo ko jënd premier verre de euh, doo ko jënd dañ la koy may mais du la ko mayee tey ëllëg nga mu nga ñam ko mu neex doo amulee da nga koy jënd donc ci cigarette ngay commencé waa ji entraîné la jox la nga tux yamba yamba dafa nekk drogue boo xam ne c'est à la porte de tout le monde mais moo gën a yées ci drogue yi yamba moo gën a yées sax héroïne moo gën a yées moo gën a yées cocaïne moo gën a yées crack amphétamine yëpp yamba moo leen gën a yées parce que c'est une drogue lente douce mais qui fait son effet en retardement koo gis yamba jàpp ko le xam ne ba mu commencé dox ak léegi ëpp na ëpp na deux ans non l'utilisation de la drogue am na fépp parce que drogue baa ngi fépp am na dans les Niayes fu ñu koy bayee am na dans les îles Caroline fu ñu koy bayee am na sax ci kër yi am na ñoo xam ne ñeme nañu ba doon koy ji seen kër di ko roose comme salade mu màgg ñu koy tox waaw c'est drogue mu mel ni cocaïne ak héroïne ça c'est la drogue des boss parce que ñoo mën a jënd un gramme de cocaïne wala un gramme d'héroïne à vingt cinq mille francs mais ki nga xam ne amul lu mu añee juin wu cinq cent francs daf ko të kooku du toog cocaïne du du du du inhaler cocaïne wala cocaïne wala wala héroïne parce que lépp luy lay tàggaleeg sa sago baaxul te donner la jeunesse et l'avenir d'un pays si les néraux de cette jeunesse là yàqu nañu defe naa pour ñu mën a tàggat seen réew day jafe moo tax ñuy tere xale yi ñu tux moo tax ñuy tere xale yi ñu naan parce que du ñuy tux di naan daf leen di yóbbuwaat yeneen vice mënu nekk ay agresseur nekk ay violeur nekk nekk ay voleur te loolu dara du ko waral lu dul sàngara si wala drogue bi ñu employé donc les parents il faut que ñu benn genre vigilance à travers leurs enfants xale célibataire bu jël néegam dugal ci ànd cuuraay foo ko fekk muy boyal di sóoru ah, di xeeñal néegam mi ngi mi mi mi ngi def loolu waaye am na leen lu nekk ci ginnaaw parce que du tuxee sa biir néegam cuuraay li mooy atténuer xetu yàmbaam kon xale buy def loolu baaxul xale boo xam ne du tëdd jotee du tëdd parents yi nañu góorgóorlu di contrôler le va-et-vient de leurs enfants xale boo xam ni àndandoo yi muy àndal seen habillement décentwul seen langage baaxul nañu doxale baaxul nañu éviter yóbbu seen doom bàyyi seen doom ñuy ànd ak ñoom xale boo xam ni su toogee di waxtaan waxtaan bi muy wax man mu ko dégg dar gémmiñam war nga ko woo ci xamal ko ni kon lii mu dugg baaxul doo tuxee nag kenn mënatu la wutal barrière parce que la mu lay jural dafay bari bu fekkee nag yaa ngi juddoo ci kër koo xam ni ay wujj fa nekk kayitoxi amba la bay wax ni wujj ba moo ko liggéey te fekk booba temps aram xala baa ngi def loo xam ne kenn xamu ko moo tax mu nekk ci boobu gaan waaw nan góorgóorlu surtout yaay yi parce que yaay yi rekk sonn parce que doom du jubee yaay ja sonn na su dëngee mhm. yaay ja sodd na mhm. yaay mooy dem ci sëriñ yaay mooy dem hopital yaay mooy def lépp ñun bàyyi amuñu lu dul xale bi jub na suñu doom la ñu nu bëgg mu mel duñu melee ñoo ko jur su ko melulee automatiquement ñu ne ko euh, ñu indexé seen yaay kon xale bi na xool acte bi mu mën a def ba lor ndeyam ji nga xam ni mi ngi toog di sëy di muñ waaw bu mu xool bëgg-bëggam ba tax yaayam tilim te moom yëgul tinul waaw yàlla na nu yàlla dolli sutura li ma wax lépp yàlla na dugg ci nopp yi koy taataan ga ko xel yi nga xam ne dinañ ko mën a analyser ba mën koo jariñoo mu nekk loo xam ni day dimbale suñu askan waaw may may xamal nag ñun ñëpp ay jeunes lañu woon léegi ay mag lañu erreur yu ñu def bëgguñu jeunes yi def ko moo tax ñuy wax pour mën leen génne ci gaam boobu mu nekkoon ay kàddu yu am solo yu ñu jële ci moom waaye itam di ñax ndaw yi waaye wayjur yi ñu xool bu baax lii ji njaboot gi te ñu bàyyi xel ñi ci commencé di wërndelu nañ leen yóbbu ci kër doktoor ndax loolu dañ koy faj